yow naka activité yi baal nañ la bu baax a baax. ça va ça va on macha allah macha allah. mais ma bàyyi la nga nuyu internet yu lay seetaan. mais mbokk yi maa ngi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. Mm-hmm, di mm-hmm. vraiment initiative yi ngay mm-hmm. def. Euh, am solo ci lam parce que tey gis naa ak wala dégg naa ay tur yoo xam ne gëj naa leen dégg si làmb trop trop trop. allah dégg <laughs> waxtaan ci yow quoi di xaar. question macha allah yaakaar naa gars yi yëpp xam ne la am na ay ñoom Talla Gueye ne ñoom mitrailleuse ay boy sey ñu te ñooñu ñëpp filmé nga leen ba taay. Talla ndeysaan ñu ngi mujjee gisee lamb lamb Italie bu mu bëri woon gaañu ci woon. waaw gis yàgg na. te yow demoon nga. waaw demoon naa si si si Italie la woon. macha allah macha allah yow moom dafa mel ni couvrir nga lamb fépp. waaw waaw. loo loolu moom mooy nekk sax ci li ma bëgg a dugg ak yow ci sa cadre liggéey balaa ñu ñëw ci côté làmb mais mais liggéey bi ngay def muy caméraman da nga ko jàng wala dafa nekk loo xam tu as été formé sur le tas wala nu mu demee la moo la dugal ci liggéey boobu. waaw man nag en fait. si euh, mm-hmm. liggéey bi dama amoon mm-hmm. sama benn sama oncle. waaw xam ne. Mm-hmm. moo sama sama sama yaay. donc mhm. euh, dañ donc photographe professionnel la woon quoi. Mhm. donc euh, labo bi nekkoon ponti affaire yooyu ñoom foofu lañ doon nekk. ok donc dama daan jàng tout le temps dama ko defoon modèle. waaw ay appareil et tout ma ne waaw di am naa kii yam de. Mhm, après comme on la SICAP Liberté 5. léegi fi ñu dëkkoon nag jàkkaarloog benn studio. studio photo. Mhm, mhm. na grand bu ñuy wax Habib. boo xam ne mhm. ñoo jàkkaar tout le temps Habib su doon suñ doon fréquenté ci bunt bi. après daf ñu daf mu doon booy xaar ma fi affaire yooyu. ma après noonu Habib commencé di ma jàngal appareil photo ni muy kiiyee. parce que boobu sama oncle bi. dafa daan wax ah, demal nga jàngi demal nga jàngi tout le temps nag. man bi. commencé kon après foofu la ma amour commencé. yooyu ay ban année la vers quelle année. Euh, c'était ay ay quatre-vingt-dix ans je pense. waaw yooyu yan façon caméra moo amoon ak yan façon appareil <laughs> yu yàgg sax yu yàgg. yu gàtt yooyu. te grand bi en fait da def ay mariage ay affaire yooyu. ok léegi. Hmm. après nag. ma ma ma koy def quelque temps def ko quelque temps. Mm-hmm. après si la ma sama benn xarit ne ma mais yow. Mm-hmm. Euh, am na benn concours bu gars yi def. benn mm-hmm. école bu nekk woon face Manguier bu tuddoon média centre. donc média donc ñoom. Euh, ay norvégiens ñoo ko defoon. chaque année. douze personnes. ma dem. tànn. tak affaire bi baax. Mhm, mhm. après nag si lañ dem. Mhm. nekk fa ak euh, suñu professeur bi ñu ay ñoom Père Xaar Fall ñooñu. allo. Père Xaar Fall moom caméraman la woon RTS ñooñu ñooñu formé et tout donc da nga amoon option nga def réalisation caméra ak euh, euh, montage. ok ok. léegi nag su ngeen di génn hmm. da ngay xool ban moo la ci gën a lool quoi. tu vois ok ok ok ok c'est c'est intéressant c'est yow après donc def nga formation réalisation yooyu yëpp def nga ko mais finalement caméraman nga opté. waaw après nag amour boobu laa gënoon a am. ok ban ban maison de presse nga njëkk liggéey. après bi ma génnee foofu RTS laa dem comme stagiaire. ok. nga def stage RTS. waaw bi ma demee ci laa fa fekk ñoom Pape laay fay et tout après nag bi ma bi ma génne demee RTS après sama stage bi mu jeexee ñu ne ma xaaral affaire yooyu bi ñu naan xaaral après euh, suñu benn suñu sama benn grand bu nekkoon si même école de formation bi ñuy wax Modibo donc il était cinéaste. Mm-hmm. ne ma non mm-hmm. boy yow yow ak talent bi nga am nii nii nii waroo toog di xaar quoi mm-hmm. xaaral ma boole la ak El Hadj Ndiaye bu 2S. mais boo demee da ngay euh, laajte benn waay bu ñuy Moustapha Diop après bi ma demee euh. Moustapha dafa ah, yow yow kii ñu jógee affaire yooyu euh. ne woon non yow la toog sax ngay indi ay CV affaire yooyu noonu daa dem mu commencé ma ñu ma kii ñu testé ma affaire bi noonu la après j'ai presque presque dix ans presque kon yow ci début 2STV yi ci nga bokk ci dans les vraiment les début ko waa de presque ñoom dawal nañ ay un an un an quelque deux ans je pense bien après si. nga ñëw fekk Moustapha Diop 37.5. cinq pour dire l'histoire l'histoire tout le temps de ki Moustapha Diop moom itam ci làmb ji la mujjee nekk promoteur. merci merci moo tëgg Modou Lo ama euh, euh, Modou Lo Ama Sène moo ko tëggoon. waaw. ok nga nekk 2S euh, bokk ci ñi nga xamante ne ñoo nekk équipe bu njëkk liggéey ci Bantamba yaakaar naa Bantamba nan ngeen ko créé woon bu ñu ko créé est-ce que yaa ngi ci biir wala naka la doon demee. parce que man man rawee nañ ma ay ay ay ay euh, mois je pense bien. Mm. parce que bi may ñëw. Babacar laa fa fekkoon. Mm-hmm. Babacar laa fa fekkoon. Mm-hmm. Babacar Ndiaye. Mm-hmm. Mansour. Mm-hmm. et y parce que Mao moo fa jiitu woon parce que Mao. comme mm-hmm. moom euh, côté technique la nekkoon. Mm-hmm. noonu après comme comme réalisation bi. parce que poche man la woon man la Mansour Gueye ak euh, kii. ak ak Babacar ok ok léegi man bi juste mm. laa ñëw rek. Mm. am fili fili mu làmb. ok léegi. ba mm-hmm. gars gis ne am naa fit bi quoi. waaw mu ne moom noonu après. Mm-hmm. donc ñu commencé. Mm-hmm. bu ñu moom gis na ne man sama touche. c' est plutôt du côté carrément. mais en dehors yi am si buntu beeg ay affaire yooyu facettes yooyu nga xam ne nit yoo lañ gënoon soxla. li nga xamante ñu dem ñu dul ñuy dem stade rek ñoo koy gis. merci. waa euh, mais avant télé bi daaw la ko woon musa nga dem loxati détail yooyu waaw kay mhm. léegi nag ay sañse ay nangam ay nangam ay xama loolu commencé ci émission ok waaw mhm. mais mais mais loolu kon moom mu indi ay rubrique image du jour nga may image yu insolite indi ay rubrique sañse yu mel noonu waaw kay mais mi mais ci début bi itam jafewul woon parce que man je me rappelle les débuts de Lutte TV nous on avait d'énormes difficultés pour décrocher benn bu mag mais yéen jafewul woon comme Bécaye yéen doon ànd tout le temps di dem di di di filmer wala dem di jël ji ay reportage jafewul woon ngeen amoon ay Yékini à l'époque ay Bombardier ay Tyson ñi fi tegoon tànk waaw mais parce que tout début est difficile mais sénégalais suy gis benn affaire muy évoluer danaa mm-hmm. ah, mm-hmm. tiens ah gars yi kon ñu ngi mm-hmm. lu lu amul woon ci télé nag mm-hmm. ñu commencé familiariser ak mbëri parce que je me rappelle au temps biñ daan dem ay entraînement entraînement Balla Gaye mm-hmm. Mm-hmm. Balla Gaye doon daw wala dara père Balla jël jël leen jël leen gën leen zoomé kee jël leen jël leen ko doomu doomu doomu Double alors que instant boobu noonu réewul woon je me rappelle ay ay laaj dëkkaay daan dëkkaay dëkkaay ñu jàppale ma nakam nakam euh, gis naa hmm. sa formation ni nga demee RTS stage jóge RTS dem 2STV après Médoune ñu jékki-jékki TFM ubbi Médoune bokk ci ci nga xamante ne ñoo presque ñoo ñëkk dem wala bokk nañ ci vraiment les premiers ñu ñu gën a ràññee ci TFM ku mel ni Maaw Cissé dem ku mel ni Médoune Diouf dem Médoune lu tax mu dem c'était pour relever un nouveau défi parce que des fois nga nekk ci benn maison de presse nga dem ba yow en li nga waroon prouver yëpp nga prouver ko pare nga gis beneen challenge wala boog c'était un truc financier wala lan la woon exactement. oui parce que à la fois parce que ñun euh, dañu ñëw. l'histoire hmm. euh, gis nga. Hmm. histoire bi ma waat ak mustapha Diop de 37 5 tu vois. Hmm. parce que dañu toog. Moustapha Diop nekkaat directeur fële parce que ne. ne man Youssou laay liggéeyal actuellement. te nee na priorité mooy équipe bantamba bi. Ah. oui. waaw là il nous débauche. parce que boobu bantamba mu téye émission Sénégal. waaw léegi mu débauché ñu parce que mu wooluñu man euh, man Mansour Gueye Babacar Diagne Sir Mao et tout tu vois. Hmm. je me Sir mooy Karajo wala bokkul. Karajo. waaw mooy Karajo. Oh, y avait Bekay tu vois. Hmm. ñun ñëpp ñu mën daal euh, dama bëgg ngeen ñëw ci ñun et tout. Mhm. ndeysaan ñun fekk nañ <laughs> ñun ci ñu bind suñuy lettre et mhm. parce que euh, li ñu proposé aussi c'est c'est c'est kii parce que. Mhm. booba ñun euh, autant da nga naan élage yëf yaa ngi dem yokkal ñu mais ak fugam yi pas <laughs> entendre ça et tout. ñu defal la promotion et ne la proposé la ay affaire nekk li ngay dundalee sa njaboot aussi yaa ko xam. dëgg la dëgg la dëgg la nag ñun ah offre bi c'est c'est lu baax la ci ñun et tout. Mm-hmm. léegi mais boobu ndeysaan boobu dem na suñuy famille ku nekk mu woola mm-hmm. ne boo yi dañuy dem. Mm-hmm. ñëw leen may leen affaire yooyu. Ah, xaw ma keneen mais man de franchement. Euh, su ma xamee ba joxe sama kàddu gi mu delloo ak ginnaaw quoi affaire yooyu. Euh, euh, euh, nag si lañ si si la si la Babacar Diagne aussi. énage mm. tamit ndeysaan woowaat ko kii. Mm-hmm. après Babacar ci la ci la ci la delloo mais man ak Mansour ak. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. ngeen dem ci roofoo roofoo def ay ay dents de scie. des fois mu dox des fois du dox. waaw ba finalement après. waaw vas nag si la man daal dama jékki-jékki benn instant ma nekk si biir làmb bi rek. kii ne ma micro bii micro bii dinañu bokk dinañu bokki dinañu bokk fi ñuy nekk Lamine Samba si biir làmb quoi xaw ma <laughs> làmbati la ma ne waaye Lamine Samba mi lu may wax nii. dëgg la mu ne ma mu ne ma yow dinañ bokki liggéey. Eh, man ma rek dem. après semaine semaine bi stop rek ñu jékki-jékki ñu présenté ko ne ne na fi. dégg moom itam mu ngi def feu et flamme de son côté ak mburu bu tàng bi. tous les dimanches waw bu tàng nangam nangam nangam affaire yi. Mhm. semaine bi ci topp rek ma gis moom mu ñëw. mu ñëw léegi nag jongante nag tàkk. yi ñaar ngeen def nii. waa après nag roofo commencé down nag. ok mais mais ngeen nekk ci jongante itam liggéey ci lu lu exceptionnel c'était quoi la différence entre bantamba ak jongante yow en fait bantamba ban pression nga am ci liggéey bi naka nga doon dundee liggéey bi jongante ban pression nga doon am ak naka nga dundee liggéey bi. parce que côté ban bantamba. en mhm. fait euh, il y avait le feeling quoi tu vois parce que mhm. Bécaye Bécaye day ñëw stade man jéemu la calculer sax lu may liggéey lu ma liggéey lu ma lu liggéey parce que mhm. demal. man demal man nit boobu laa dama nekk bu libre quoi. man may dem ma xool li may def li may li may kii et tout tu vois. Mm. dans ma mm. euh, njëkk a jox micro quoi. Mm-hmm. ne ko ni am micro rek yow soo ñëwee rek posel ma lii ak lii ak lii quoi. Mm. xam itam ci sa liggéey. Euh, parce que bi des fois jànkonteel ay jafe-jafe yu yéeme yow ci seen liggéey est-ce que mos nga ci am benn jafe-jafe ba nga xamante ne ñibbi nga sa ne man waa vraiment lu ma nekkaat nii comme arbitre yi keroog bu ñuy wax rek ne ñoom ci combat Aliou Seyde ak ñàkk jariñu ci la ñuy posé waat seen bopp ay question yow ci seen liggéey est-ce que mos nga ci daj ay difficultés yi nga xamante ne bi nga delluwaat ci ci bureau ba nee nga leen non gars yi man je veux pas <laughs> continuer à travailler dans ces conditions là. waaw man nag en fait sama sama dama nekk nit boo xam ne. Mm-hmm. Euh, sama liggéey souvent. Mm-hmm. parfois damay gis sax caméraman di ko def. Mm-hmm. damay dem xel quoi. Mm-hmm. may dem xel parce que. lamb làmb làmb sotti nañ ci saw. làmb dem nga par exemple à Fatick Bekaay di wax euh, Bekaay di wax ne Ouza daan na gis benn waay jóge fële na la da waaye fen nga. xam nga kooku tey. da ngay futteeku ne da ngay jéem a xeex mbër bi. dëgg la xam naa li ngay wax. waaw lu ne mën na ci am. Mm-hmm. ay yu bëree bëri bëri quoi da ñëw lu bare bëri da ngay gis ki bu nekk diir Demba Diop xëcc kiiwu saw ne la ko teel. doo ci mën dara. waaw du loo ciy mën. fekk yaa ngi topp mbër bi muy sànni mbër bi ay affaire sànni la ko. oui. Mm-hmm. waaw parce que boobu. yow talu taloo loolu quoi parce que li la fa indi moo la fi indi quoi. Mhm. ok mais mosoo am par exemple mbër yi jàpp ni i non Médoune bii kat daf ñuy xeex Médoune bii kat Liberté cinq la dëkk Liberté cinq am na benn mbër bu fa dëkk genre mel noonu. non Médoune dafa tege genre yooyu noonu bu ñëwee entraînement ba bu leen ko bàyyi mu dugg. non mais man nag man nag man nag mosuma mosuma mosuma dund lool ci làmb parce que pour cela je voulais pas je voulais pas yen proximité yi ak ak ak ak ak mbër yi quoi. waaw euh, euh, da a garder say distance ak mbër yi. samay distance quoi waaw. amoo leen ak ñoom relation amoo ak ñoom relation. non pas relation boo xam ne damay dem sa kër di la fréquentanteeg nangam hmm. nangam. Ah, moo may lu bëri quoi. ok ok ok waaw c'est vrai c'est vrai effectivement mais mais aussi ma bëgg xam yow itam. tey Médoune ci liggéey bi est-ce que liggéey bi am nga ci leen loo xamante ne neex na lool lool ba nga xamante ne doo ko gaaw a fàtte. no parce que parce que ni ma ci benn jour. Mhm. Euh, benn image ndeysaan moom ma moo ma nag si si benn làmb. Mhm. dama nekk si làmb ndeysaan ma xool benn booy benn booy silmaxa quoi. booy mhm. benn booy boobu doon ñëw ci làmb. mais ba si yàlla ne tiens xool booy bi quoi ndeysaan booy gumba bi. ma ne xoolal image ma ne xoolal booy bi tey ñu ngi savouré lii mais moom yuuxu rek lay dégg si làmb ji. Eh? ça m'a fait pleurer ah. ci la toogoon. non ci juste si fi ñuy taxaw ñun. dañ ko womat nii booy bi ndeysaan mu ngi dégg nangam nangam ma xool image boobu rek sama xel daw ci lu bari quoi. Mm-hmm.